situation subvention bi moom xanaa kontaan rek di remercier le conseil municipal de la ville de Dakar à sa tête le grand maire Barthélémy Toye Dias di remercier subvention bi ñu jox rek kontaan nañ ci trop li mën na suqali ASC bi ci limu jëm à savoir début saison pour début saison bi ñuy préparer 2022 2023 vingt bi kontaan nañ ci trop. subvention mom wax deug yalla lo xam xaro ko luñ la ci jox rek jëlal wa lo xam ne mom ko lu la ci jox rek jëlal li kontaan nañ ci trop ci geste bi di ñaan yalla mu mu nekk lu pérenne pour yenen yenen équipe yi wala yenen association yi gis ci seen bop wa non ASC bi am na compte da koy dépenser par rapport ak charge yi nga xam mom la amé loolu moy wax ci alors légui nak yéen a ngi waajal ab final mën nga est-ce que mën nga ñëwaat ci final wa final bi mom ñu ngi koy waaj ñu ngi koy waaj de la plus belle des manières parce que final fête la mais jouer ko neex na mais gagner ko mo gëna neex. dañuy ñaan yàlla dem ci ak jàmm yàlla may ñu dem ci kaw Agel bu